به نستعين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومصطفانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الميامين نجوم المهتدين ورجوم المعتدين ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ayyuha al ahibba fi llah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñi ngi ginnaaw bi sante borom bi subhaanahu wa taala sant ko ci ni'matul ijaad waaye sant ko ci ni'matul imdaad ci xéewalam yu bari yu yaatu yu fasantikoo yi nga xam ni làmmañu doomu aadama lott na ci di ko tudd may wax ni toujours bu ñu xoolee fi borom bi subhanahu wax taala wax ni wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuha foofu yàlla benn xéewal dong la wax neexma waxul ni bu ngeen doon lim sama xéewal yi mun leen koo matal waaye benn ci samay xéewal rek xéewal ak gis rek bi la yàlla defal ngay mën a xool say bët di gis xéewal googu yàlla nee na boo ma ko bëggoon a sant ba kere ngay génn àdduna nee na sa dund gi yëpp dinga ko jeexal ca doo mën a matal cant googu kon nag alhamdulillahi war na jaam bi saa su ne mu koy wax ñu dellu sant yàlla bu baax a baax waaye julli ci sangu-sang yi sayyiduna muhammad moom mi nga xam ni bu ñu toogee di sant yàlla moom la yàlla dogal mu jàngal ñu lu ñu ko war a sant mu nekk lumière boo xam ni moom la yàlla indi ci àdduna ngir mu génne àdduna ci lëndëm yóbbu ko ci leer li tuxrija naasa min adulumaati ila nuur mu nekk it siraajan munira ñu ñaan yàlla yàlla yàlla jullit ñu ci moom ak i ak waa këram ak mbooleem ku soobu ci nahju siraatul mustaqima ila an yarisa allahu al arda wa man alayha ñu dellu siwaat di nuyu mboolem ñi teew ci néegu yàlla bile fi nga xam ni mooy place bi nga xam ne dama koy faral di wax toujours bu ñu yàlla gane si woon tey ah yaakaaruma ni kenn si ñun dana taxaw ni ko kaay ma yóbbu la nga wàcc sama kër ndax moom am na fi kër ba pare bu yàlla ñëwoon fii ci ay numaan wàcc fi ci waxin yaakaaruma ni dina fi wàcc ci kër kenn ndax moom am na fi kër ba pare am na fi néeg ba pare fii ñu toog mooy néegu borom bi subhaanahu wa taala mu mel ni kon ñi ngi daje ci néeg bi gën a tedd ci néeg yi muy néegu yàlla dinaay faral di wax ni fii ak téeméeri at ci kanam ku ko fekkee woon boo ñëwee ay numaan di nga fi fekk kër yoo xam ne nekkatuñu kër leneen lañ ah, kër gi fii de kër la woon léegi centre commercial la fii de kër la woon léegi leneen la waaye fii jàkka la woon leneen la ba kër la àddina di tukki du am jàkk ay nu maan jàkka doon ba ker la àddina di tukki loolu di bokk ci jagle yi nga xam ne néegu yàlla loolu la jagloon kon ñu leen ci dalal di wax ni toogaay bi ñu fi toog sikk nekkul ci ni toogaay la boo xam ni malaaka yaa ngi koy filmé toogaay la boo xam ni bonus la ci suñu dund ndax mboolem lu ñu fi toog yàlla kon kontew ko ci heure yi ñu war a dund da ko ciy génne mu nekk bonus kon yàlla na yàlla defal ñu ci tawfiq ba lépp lu ñu fi yéene rek yàlla defal ñu ci lu kawe suñu njort ñu ngi nuyu waa jàkk ji yëpp imaam dem xam naa mi ngi ñëw dafa am yitte bu mu nekk waaye incha allah léegi mu ñëw ànd ak ñun ci jotaay bi imaam Abdallah dem ñi ngi jaar ci moom di nuyu mboolem waa jàkk ji kilifa yi jàkk ji yëpp teew nañ ndax président Baba gàll mi nga xam ne moo jiite liggéeyu jàkk ji moom macha allah teel naa ñëw trop jiite liggéey bi ñu koy nuyu di ko ziyaara di ko jaajëfal ci taxawaay yi ak mbooleem ndax ku lim doomatal bu ñu ko tuddee rek mën nañu yóbbaaleel mbooleem góor ñi nga xam ne ñépp teew nañ ci sëñ Njaay ak ñi ko bokkal yépp sëñ Mbeng macha allah waaye di beral nuyoo ak ziyaara euh, suñu soxna yu tedd yi soxna Ndey Alassane moo fi jiitu mu naa ma moom comme <laughs> femme de développement la boo ko joxee rendez rek da koy bëgg di fekk ñu ngi koy nii di ko ziyaara Fa Balla Gueye ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara waaye rawatina suñu yaayu daara ji nga xam ne mooy soxna ay dafay sànq ci suba mi ngi may woo ni ma man bi ma jullee sax tëddaatuma ngir rek di soññee di dox di wax macha allah yàlla yàlla yàggal sa taxawaay ñi ngi ko bokkal ñëpp ñu ngi nuyu soxna yëpp wax dëgg yàlla di <clears throat> kontaan bu baax a baax ci teewaay bi jataay bi mi ngi war a commencé waaye jotaay bi ni ngeen koy gis ak euh, mbooloo mi bareegul macha allah waaye quartier yi yëpp a ngi fi dèjà loolu rek dal na xel waa Lansar ñi ngi fi waa Aynumaan ñi ngi fi <coughs> waa a war a mi ngi fi waa daaru quddus <coughs> ñu ngi ci jotaay bi <coughs> ca incha allahu taala mbokk yi bare bari ñu ngi ci yoon wi di ñëw kon pour gën a gagner temps dañuy jël nuyoo yi yépp rek teg ko ci loxo suñu sëriñ suñu ustaaz suñu lépp di ustaaz Massyla Kane yàlla na ko yàlla sàmm léeg-léeg nit di war a def waxtaan ñu ne nañ ko présente waaye yaakaar naa oustaz Massila la kenn du jël taanaan da nga koy présenté wax dëgg yàlla ndax mbooleem ku nekk ci jotaay bi xam nga ko ci wàllu daawa ci jamono bu yàgg yàgg yàgg yàgg ba daawa gën a jafe woote ci dina gën a jafe jamono jooju ci ñuy it leader yi nga xam ne ñoo njëkk taxaw ci pikin di tasaari diine di ko tasaari ci banlieue beeg fu fépp ci Sénégal oustaz Massila Kane mii ci la bokk yàlla ko yàlla sàmm waaye teewaayam bi li ñu ci gën a neex. ñetti weer a ngi ni ñuy coordonné jotaay bi mbokk yi ñetti weer yombul woon waxtaan nañ ci jàkka ji xool ndaka lañuy def ba am lu mel nii ak ku mate ndax lii ñuy bëgg a def du ñëpp ñoo ko man waaye ku ko mate yàlla dogal bi ma ci waxtaaneek moom mu jafe woon ngir ay mbir yu bari bi ci njëkk mooy calendrier mayu ko woon jamono jii mu ngi jóge Mauritanie ci ay programme ci tamxarit bi war tamit dem États-Unis ci beneen programme yoo xam ne foofu la ko war a def mais ma ne ko nag diggante bi moom <laughs> il faut que nga xool nooy fexe fexe ba xajal ñu ci bañ man ci jàpp dat kon loolu mbokk yitte la kon tabaarakallahu yal na yàlla sàmm oustaz kontaan nañ trop ñu ngi lay jéggalu ci nag ci tardement bi dix heures fi fekk waaye macha allah loolu moog mission bi ñoo ànd oustaz Aliou moom it ñu ngi koy ziyaara bu baax ñëw na ngir wéttaluñ ci jotaay bi oustaz Ibrahima jekka daalik kon mbokk yi programme bi ni ñu ko bëgg a doxale mooy <clears throat> bu ñu yàkkamti bu kenn yàkkamti nañ ci jël suñu temps rek ñu fexe ba li ñu fi taxa daje ñu fexe ba def ko ci gën gaa rafetuk anam insha allahu taala ñun dinañ ubbi ay kàddu kàddu fàttali rek lay doon kàddu fàttali boo xam ni insha allahu taala dinañ ci leeral tuuti ci ay atti atte yi nga xam ni sa eh, eh, imam bismillah tafaddal kon tabaarakallah dinañ fàttali tuuti rek ci ay atte yu aju ci waxtaan ñu fi tax a daje bu ko defee suñu ci pare jox oustaz pour bañ a tardé benn temps moom mu ñëw ak yéen incha allahu taala ci tomb bu sensible mooy lan mooy nit ku nekk ci wàccaay moom foofu lay tàmbali waxtaanam maanaam di nga gis nit koo xam ni mënul xàmmee nit ku feebar ba toll ci wàccaay ak koo xam ni dafa feebar rek ndaka lañ koy xàmmee waaye boo ko xamee ndaka nga war a taxawee jamono jooju ci wetam foofu la mbir yi commencé bu ko defee dina waxtaan ci loolu benn par benn étape par étape étape bu kër gi d'abord ndax foofu bari na lu ñu fay négliger mbokk yi. bari na lu ñu fay négliger yoo xam ne dañ ko war a bàyyi xel ci état bu kër gi bu ñu nekkee ci kër gi ban nan lañ koy toppatoo nan lañ koy taxaw ba kere lañ koy indi ci jàkka état boobu dañ koy war a bàyyi xel bu ñëwee ci jàkka ji kadaalik ndaka lañ koy taxawoo ci biir jàkk ji loolu nekkaat état boo xam ne imaam yi xam nañ ci dara bu mat a bàyyi xel ndax léeg-léeg soxna yi ñépp bi ma leen koy yëgal dama ni leen ku mënta volonté wu defal ko keneen jàppal ni bés dana ñëw nga ni kii de su ma sañoon maa koy taxawul sama bopp moo tax étape boobu il faut ñu xool ko bu baax waaye beneen étape des na boo xam ni mooy étape bële nag mooy dar dar darñeel kër gi nga xam ne nag fala la euh, néew boobu war a dugg yi ca ñu war ko jébbal boromam foofu it yéen góor ñi gis ngeen bu ñu demee foofu coow li ni muy bari bu ñu war rob da ngeen gis coow li day bari nañ def lii jiitalal fii taxawal fii ku nekk day wax ndax li tax wax ji di bari mooy ñàkk a xam waaye bu ñu xamoon niñ ko war a taxawoo rek wax ji du bari foofu kon incha allahu taala loolu moo war a nekk jotaay bi kon imaam dem defal ñu ñaan ah imaam génn sa Ibrahima defal ñaan ñu soog a continuer ci jotaay bi incha allah. jërëjëf fadilata cheikh kon mbokk yi tabaarakallah euh, ni ñu ko junjee sànq rek ñu bàyyi xel ni euh, doomu aadam borom bi subhaanahu wa taala. moo ko bind wàcce ko ci kaw suuf waaye wàcce ko ci kaw suuf dundam am na ko borom bi subhanahu wa taala organisé mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala léeg-léeg mu fassiru ne dañuy wax ni am na xikma bu tax bu yàlla di wax ci dund doomu aadama dee lay njëkk soo ko wax dund mu mel ni nag nit ñi ci wàllum dee moom ay catégorie lañ am na ñoo xam ni boo tuddee dee dañu yàkkamte nga noppi bëgguñu koo dégg waaw li ñu bëgg rek mooy moom moom nañ ñëw rek bett leen waaye bu ko kenn wax bu ko kenn tudd amoon naa benn maam boo xam ni boo jàppee rajo buy tàgg nit ki su demee ba feebar moo gën a xam boppam léeg nga feebar feebar boo xam ni wóor na ni la feebar bi yàlla rek a xam waaye ñaaw xel di fàttaliku dee lu bari jëlal dee nga teel ko def sa bopp donte ni ñépp ko war a bàyyi xel waaye am na feebar fu muy àgg nag da nga war a jël dee nag teg ko mu sa kanam nga bàyyi ko xel bu baax a baax yonent bi sallallahu alayhi dafa mas a romb gars yi ñu toog ci garam place waxtaan wi neex lool ñuy xàqtaay yonent bi ne leen aksiru min zikri haadimi lazzaat bàyyi leen xel li nga xam ni mooy mabbu bànneex yi ca mi ngi ci seen kanam waaw kon ñépp ko war a bàyyi xel waaye rawatina ki feebar ñaareel bi mooy gis nga bàyyi xel dee dinaa leen ci wax tey benn njariñ njariñ li mooy lan yonent bi nee na ki nga xam ne day bàyyi xel dee nee na bu fekkee daa nekkoon ci xat-xat xat-xat yooyu day mujj nekk ab yomb ci moom masalan bu fekkee ñàkk moo la sonal nga toog di xalaat ci ñàkk ba mu yàgg rek sa xel nekk ci dee ndax ñàkk gi di dina la def problème gis nga ko commencé na sa àdduna commencé naa neex yow léeg-léeg nga nekk ci jafe-jafe kër gi xuloo beeg nangam nangam ba sa xol bi naqari lool nga toog wéet rek sa xel nekk ci dee nga ni ah waaye nii yëpp jëru ko ñun léegi ñu dee ñun ñëpp dee bàyyi ko fi kon jëru ko gis nga kon ndekete di fàttaliku dee day rek lay problème saa yoo ko fàttalikoo rek bu la fekkoon ci xat-xat say xat-xat day commencé jeex problème yi commencé jeex ndax xam nga ni dee mi ngi ñëw ca bu dee ñëwee moom lu problème bare bare bare bu dee ñëwee problème na ñaareel bi mooy bu la fekkee ci àdduna bu neex ngay fàttali ko dee day tax nga am équilibre ndax bu la naroon a tax a def safaan da ngay commencé di fàttaliku ni dee mi ngi ñëw ba nga tax yenn yi du too ko def ñaareel bi mooy arida bi qadaa illah boo feebaree na nga nangu dogalu yàlla ci yow dangay nangu dogalu yàlla bul saalit bul feebar ba saalit bul feebar ba tuumaal wala nga tam kenn jëlal yépp delloo ko ci yàlla maa asaaba min musibatin illa bi iznillah wa man yumin billahi yahdi qalba kon kooku it jamono jooju na bàyyi xel ni yàlla rek moo ko teg li ko dal bu mu ko jiñ benn doomu aadama mbokk yi bari na ko dem ba foofu saalit ni la ma dal diwa ma ko teg wala dama dal diw moo ma moo moo moo ma ko def ñu moytu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lépp lu dal jullit dana kaffaare bàkkaaram mu ni coono bi nga am mi ngi kaffaare say bàkkaar jafe-jafe yi nga am mi ngi kaffaara say bàkkaar nee na ngay dox ci yoon fakkastalu mu mu kaffaara say bàkkaar dégg jam la mu kaffaara say bàkkaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na feebar nag bu ñëwee du la bàyyi du la bàyyi lu dul ni dalaa raxas ba nga seet wécc ba du toode sa benn bàkkaar ndekete yaa ngi daw feebar ndekete feebar bi léeg-léeg asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum mën naa nekk mission la bu ñëw ngir raxas la ba nga seet wécc ba du toode sa benn bàkkaar ñeenteel mooy nga rafet njortu ci yàlla nag ndax jaam a ko séq xaw xawfi war rajaa dañu wax ni bu la dara jotul toujours ñaar yi de ko bàyyi xel léeg-léeg del tiit sa diggante ak sa borom boo dajeek moom waaye nag deel rafet njortu ni yàlla ku la yërëm la bul boole sa bopp mukk ca ñay dem ci safaan waaye bul jaaxaan nag ni man àjjana laa jëm da ngay am équilibre ñu ni nag boo demee ba feebar nañu bàyyi xel loolu soo demee ba toll ci benn moment bi bul ragalati maanaam da ngay bàyyi ragal gi ak ye ak ak ak tiit sa diggante ak sa borom nga jël yaakaar nag teg ko fa mu jeex est-ce que ñu ngi bàyyi xel am na foo xam ne boo fa ak xasee ak rafetal njort yaa ngi feebar ba toll ci benn moment bi bul xalaat dara ah fii ma toll de maa ngi waaj a dajeeg sama borom wóor na ma ni bu ma dajeeg borom yàlla dina ma yërëm benn aaraab bi dafa toog ba mu yàgg feebar ñu ne ko yow est-ce xam nga ni sa feebar bi doo ci jógee mu ne bu ma fi jógee fu ma jëm ñu ne ko ci sa borom mu ne alhamdulilah dama yaakaar ni boo fi jógee keneen laay dajeel sax waaye comme yàlla laay dajeel de alhamdulilah kon jamono jooju loolu nga war a xalaat ni sama borom laa war a dajeel comme sama borom laa war a dajeel nag bul tiitati dara rafetal njort yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la jàngale ca xadis bi nee na eh, eh, eh, jaabir moo koy nettali nee na yonent bi laata moo génn àdduna dama ko daan dégg mu naan laa yamuutanna ahadukum illa wa yuxsinu zanna bi bu kenn ci yéen génn àdduna lu ni dafa fekk mu rafet njort digganteem ak boromam kon loolu ay mbir la yu bari yoo xam ne yu mat a bàyyi xel darñeel ba nag ci ki feebar ba àgg ci benn étape bi mooy na def testament jullit ñi dañ koy sàggane jullit da ngay def testament woo sa njaboot ñi la gën a jige ah diw yoreel naa ko nangam diw na ngeen li nga bëgg a dénkaane sa ginnaaw nga dénkaane ko loolu ku wér sax da ko war di def yonent bi dafa wax ne jullit sax bu toogee ay fan dara jotu la war nga koo def ndax almawt yaati baxta dee day bett lii laa bëgg lii laa bëgg lii laa bëgg loolu taxul nag dee ñëw rawatina boo demee fa feebar yenn feebar da ngay dénk sa njaboot nga wax li nga bëgg yépp koo ameel wax ko loo bëgg sa ginnaaw na ko dénkaane ñu bindal la ko ba mu leer nañ ñu dem nag ci ki nga xam ne dafa génn àdduna lu ñu war ci moom nit bu génnee àdduna ñun lan moo ñu war ñiy dund lan moo leen war bi ci njëkk mooy ki génn àdduna jullit ñépp ku amul ngànt war nga ñëw teewe fa ñu koy waajale ñaareel bi mooy ñiy dund ñoo am responsabilité sang ko ñiy dund ñoo am responsabilité euh, jullee ko ñiy dund ñoo am responsabilité yóbbu ko ca armeel ya ñiy dund ñoo am responsabilité jébbal ko boromam juróom-benn yi ñiy dund ñoo ko ameel néew bu génn àdduna bu ñu ko sàgganee nag ñun ñéppay am bàkkaar moo tax juróom-benn yi yépp dañ ko war a xam ndaka lañ koy sange ndaka lañ koy jullee ndaka lañ koy sànge ndaka lañ koy jébbale boromam subhaanahu wa taala mu mel ni sang néew mbokk yi waajib la ci mazhabu Maalik de ngiiru Maalik dañu wax ni sang néew farata la forcément néew dañ koy sàng ba ci yonent bi dañ koo sàng bu doon sell lay tax du ñu la sàng kenn du sàng yonent bi mais yonent bi saa sam ak li muy sell yépp bi mu génn àdduna dañ ko sàng imaam Ali ak Abbas ñoo ko séqoon di ko sàng ak ñëpp ña leen doon jàppale kon nag képp ku génn àdduna dañ laa war a sàng ummu Atiya kenn la ci soxna yonent bi nee na benn doomu yonent bu jigéen dafa mas a génn àdduna nee na yonent bi ñëw daal di jàkkaarloog waa kër gi ni leen hey ñu ni leen ñu ni ko naam mu ni sama doom bii na ngeen ma ko waajalal ngeen sang ko ñetti yoon su setul ngeen sang ko juróomi yoon bu setul ngeen xool ñaata yoon a ngeen sangee ko noonu kon oustaz dina ñëw ci ndekete booy sang néew nga sang ko ñetti yoon setul da ngay continuer sang nga continuer di sang ba kera la war a set ñaata war a doon yonente sallallahu alayhi jàngale na ko ndax ba mu waxee sang leen ko bu setul sang leen yoon bu setul nag ngeen continuer sang ko ba yëg ni set na ngeen soog a bàyyi kon loolu farata la boo xam ni ñépp dañ koo war dañ ko war a defal ñëpp mu mel ni bi ci des mooy léeg-léeg nit laaj ñi waa lu tax ñu war a sang néew est-ce que pour dindi sobe si nekk si moom la rek déedéet dañuy sang néew ngir ñaar dañ koy sang ngir setal sobe bu nekk ci yaramam wala boog lu taq ci yaramam waaye dañ koy sang sang bi nekk jaamu yàlla ci moom ay baada la de bu doon set bu doon lu taq rek kenn du sang yonent bi wax naa bu sànq ndax yonent bi amul dara lu koy taq ci sobe waaye sangu ko jaamu yàlla la comme ni jigéen di tolloo ci idda ñu ni ko iddawul ngir nga mën a set waaye iddawul ngir nga mën koo jaamoo sa borom subhaanahu wa taala kon ndekete bu ñu sang néew dañ koy setal waaye du loolu rek dañ koy sang ngir jaamoo ko borom bi subhaanahu wa taala léegi nag mu mel ni am na ay charte yoo xam ne dañ koo teg ci euh, ki ñu war a sang mooy kan ndax du ñëpp lañuy ñuy sang di loolu yëpp dama koy junj oustaz dina ci gën a yaatal du ñëpp la ñuy sang de ki ñu war a sang mooy kan mooy ku judd àndaale bakkan ca nekk jullit ki juddu àndaale bakkan ca nekk jullit kooku lañu war a sang bu xasee jooy rek liir bu xasee juddu jooy rek dañ koy sang dañ koy sang dañ koy jullee loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax bu indaalewul bakkan nag. dafa judd àndaalewul bakkan jooyul kooku kenn du ko sang kenn du ko jullee waaye sopp naan deret ji mu àndaale ñu fomp ko ngir ormaal doomu aadama ñu fomp ko ba mu set nettuwaaye ko ba mu set ngir ormaal kenn du ko jël ak ni mu mel noonu deret rek jël yóbbu déedéet dañ koy fomp nettuwaaye ko ba mu set ñu jël ko rob ko nag ca armée lu jullit ñi léeg-léeg erreur boobu dañ koy def parce que ki judd na àndaalewul bakkan ak ñu ne nañ ko suul ci biir kër gi wala nañ déedéet dañ ko war a yóbbu ca armeel ya ñu suul ko foofu même bu fekkee kenn du ko jullee sax ñaareel bi ci kundul suul mooy ku dee ci xare ci jihaad ca loolu amatul ba jihaad di am boo dee ci jihaad kenn du la sang ñetteel bi mooy koo xam ni ci lakk la faatu wala yaramam daal partie bi ceer bi dem na moo xam accident la moo xam ci lakk la wala ba ceeru yaram bi dem na kook kenn du ko sang kenn du ko jullee kadaalika ñett ñi ma la wax ñëpp kooku kenn du ko sang kenn du ko jullee ñooñu euh, du du ñu leen sang. Mhm. kon nag loolu ay attale yoo xam ne bu saa ñëwee dina ci gën a yaatal euh, bi may jeexale mooy nit ki bu génnee àdduna kan moo ko war a sang loolu nag bokk na ci njariñu jotaay bi ñu xam kan moo war a sang ca ñu bañ di ko ragal ngir yàlla ak yonent bi nit ki su génnee àdduna ay mbokkam a ci gën a yay ay mbokkam ci mooy ki mbokkam yooyu ka ca jiitu bu dee góor la ngal la waay soxnaam na volontaire sangu ko bu dee jigéen la na boroom këram volontaire sangu ko loolu mooy li gën ku génn àdduna sa borom kër di dund bu dee jigéen nga sa boroom kër moo war a volontaire sangal bu dee góor nga bu dee jigéen nga sa euh, góor nga sa soxna moo war a volontaire sangal loolu mooy moom la a gën a taamu balaa kenn di ñëw ñooñ lañu war a laaj est ce que mën nañu ko sang wala mënuñu buñ dee sango fa la sutura ba ëppee moom lañ gën a taamu Abu Bakar mi ngeen di dégg premier xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi bi mu génnee àdduna Asma bintu Umays moo nekkoon soxnaam moo ko sang Ali ibnu Abi Talib moo ko njëkk a génn àdduna kere ba Fatima génnee àdduna Ali moo volontaire moo sang Fatima tu Zahra bintu Rasul sallallahu alayhi wa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lañ diglee ci sharia borom kër mooy sang soxna soxna mooy sang boroom kër su fekkee loolu mënul nekk ñu ne dañ xool mbokk yi doom gis ngeen de <laughs> boo ko waxee sax day tumuraanke ci nit ñi doom na mën na sang ñu ne ana doomam doom ji joxe ngànt ñu ne ana baayam baay bi ñëw mën na ko sang baay bi joxe ngànt bu dee ñoom mbokk yépp mën nañ koo frère am ñu xool ko ba xam bu ko benn frère am mënee sang baax na ñu xool ci mbokk yooyu ba ci maamam ñëw ba ci papaam bu ndaw ñëw bu dee frère am yeeg mbokk yi ñëpp nag joxe nañ gànt mënuñu koo sang ñu ni nag kon nañ xool ci dëkkandoo yi wala kenn ci mbokk yi ku ko mën a sang ñu soog a jëli foofu kenn mu ñëw mais mbokk yi ku mën a defaral sa bopp ci ñu gën a jege defaralal sa bopp sa néew suñ ko amul ñu soog a dem wuti keneen su fekkee nag ay góor benn góor moo génn àdduna ca benn góor gu ko mën a sang néeku fi loolu lu tumuraanke la xool nañ góor góor boobaa dañu dem ci jigéen ñi de ñu ni na yaay ji ñëw yaay ji mënul ñu ne na doom bu jigéenam ñëw doomam bu jigéen ñëw nan xool koo xam ne bu doon dund mënu koo takk bu doon dund mënu koo takk nañu xool ci ñooñu kooku ñëw waaye nag daa am charte bu boobaa jigéen ki buy sang ku góor ki du ñu muri yaramam même bu dee yaay moo koy sang wala ku mu manti doon bu dul soxnaam keneen ku mu manti doon du du muri yaramam dañuy jël yére bu diis teg ko ci kaw yaram bi noonu la ñuy sottee ndox mi noonu lañ koy sangee oustaz dina ci ñëw ci détail yi waaye jigéen buy sang góor te du soxnaam du ñu muri yaramam góor it bu fekkee mooy sang jigéen ndax amuñu keneen ku ko sang su boobaa kadalika bu booba du sax duñu ko sang faf faf moom charia dafay fiir bu jigéen génnee àdduna amuñu benn jigéen ko sang dañ naan nañ ko tiimal waaw dañ ko tiimal armalal ko defaral ko sol ko kii mu jël kenn du sax dindi yéreem yéreem solo dañuy jël armal bi rek teg ko ci kawam muure ko ko tiimal ko jullee ko mais kenn du ko sang jigéen kon loolu mooy li nga xam ne bëggoon nañ koo jiital euh, jo jox oustaz ñu wax ne ñetti ñi daal euh, ñoom lan dul sang ci néew bu génn àdduna bu ndox amul amuñu solution duñu sang néew bi bu fekkee yaram bi àttanul ndox moo xam lakk moo ko jàpp wala <clears throat> feebar boo xam ne léeg-léeg ba ci corona maa ngi naan oustaz Alioune bu fekkoon def na ci baxs bu yaatu jotaay bi doon na ko may dinañ wax jamonoy corona. dëgg-dëgg bu feebar bu mel ni corona bu amee nan lañu war a sange loolu lislaam jàngale na ko nan la ñu war a sange ci jamono jooju léegi-léegi mbooloo mu bari génnandoo àdduna ci mel noonu ay épidémie ñu ne ñii corona moo leen jàpp wala gaañu nañ te seen feebar day wàllaati naka lañ leen war a sange chariatul islaamiya jàngale na ko waaw ko defee nag loolu lañu doon ubbee rek jox oustaz ñu teewlu bu baax a baax oustaz dinañu defal waxtaan su defee waxtaan wi ci ni mu euh, war a jàngale yépp balaa ñoo dem ci pratique bi ndax andi nañ mannequin ak yëpp dañu war a def pratique ci diggante bi dinañ def tuuti pause xam naa ne du ñàkk yëfu mbengeen ak yu mel noonu dina fi am ñu mën a kii tuuti soog a mën a dem nag ci pratique bi incha allah ñu ngi jégalu di rafetlu teewaay bi saa ñu ngi jégalu ci guddal asalaamaaleykum wa rahmatullah samii al alim min alsheytaan arrajim allaim bismillahi rahmani alhamdulillahi alladi manna ala hadihi al umma bi bi'sati xayri albaraya wa ja'ala tamassuka bi sunnatihi ismatan min alfitani walbalaya wa sallallahu wa sallama ala manbai nuuri walhidaya sayidina wa mawlana muhammadin wa ala jamici alihi wa ashaabihi wa man ittadaa bi hadi ila yawmi din mbokk yi ñu leen di nuyu di leen ziar di ñaan yàlla yàlla na jotaay bi nekk lu neex yàlla mu ful ko fay ko nuyoo bit ñoo ngi ci jiital imaam dem imaam Abdullahi dem moo dalal ci jumaay ci di nuyu tamit oustaz eh, El Hadji mi nga xam ni mooy sababu sunu teewaay fii muy sunu wëllëre bu yàgg di sunu promotionnaire ca màkkatal mukarrama 2018 nii mu doxale nu mel noona la doon doxale ca màkk ak madina ngir xett li jullit yi ci loo xam ne amal na leen njariñ di nuyu ustaas euh, Alioune Diop ak oustaz Ibrahim ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu mbooleem ñi fi teew góor ak jigéen ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di sant alxaaj mi nga xam ne li muy woote pour ñu wéttali ko ci mën na ko eh, waaye nag boo nekkee ay nit di leen wax dafa weex dafa weex jekk na am ku jóge ca àll ba ni ah kay tàll waaye lii mën na ko ñun ñi mu woo itam maîtriser wuñu ko à cent pour cent ndax am na ay certains oustaz ak i boroomi xam-xam yoo xam ne yàgg nañu koo def yàgg nañu koo wax ba fa ñu ca àgg sax àggunu ci moo tax lanu cay wax lu ñu tënk rek lay doon euh, lu ca manqué itam war naa mën a nekk ndax mbir boo ko ndar keppul lépp mënoo wax lépp waaye ni ko ustaaz waxee rek xalaqa buur bi tabaraka wa moo wax ni xalaqal mawta wal xayaa firikat yu bari dañ naan yàlla dee la jëkk bind door a bind dund boo ko waxee bàyyi noonu nit ñu duñ ko xam duñ ko comprendre waaw mën nga koo firee nii te léegi scientifique yi dañ koo démentir dañ daan wax ni man yu bu sos nit daa dee dundul ba mu duggee fa mu dugg nag la door a dund moo tax ñu ne dee la jëkk bind door a bind dund scientifique yi nee nañ déedéet loolu du dëgg parce que yi bu yi sos nit ay wallax njaan la yoo xam ne mu ngi dund firi boobu gaa yi daw ñu firee ko neneen mooy kon nag sunu dund gi la yàlla considéré wul tàmbalee ci bu nu dee muy dee la jëkk bind bu nu dekkee teg ci dund sunu dund gi bu ñu nee yàlla considéré ko day delluwaat rek ci li muy wax ni jarul jël sa lépp jox ko dund àdduna ba dund àllaaxira nga fàtte ko waaw yooyu yëpp ay waxin la yàlla dogal itam nit lis jullit surtout lislaam da koy gunge ci lépp ba mu juddoogul ba ba mu juddoo ba ba ñu koy boot ba ñu koy nàmpal léppam lislaam da koy accompagner pour mu bañ a dugg ci kàmb waaye gis nga ñeenti station yi dafa dafa station yi dafa bariwul ba pare dure bi gàtt liir bi ba ni moo na moom de xale bu góor la léegi moom de paa la dee na xoolal rek ñeenti station te diggante bu ne ak moroom ma gàtt wala moom de liir la léegi de jànq la léegi de meer la dee na téeméeri at boo ko dundee nitam wala ñaar téeméeri at boo ko dundee itam du tee da ngay dee rek kon nag waajal ko comme ni ko oustaz waxe ci exposé bi mu def lu am solo la doo nekk nag di souffrir di misère di souffrir rek ndax yonent bi daf ni amal li dunyaaka ka am taishu abada wa amal li axiratika ka annaka tamutu xada boo dee dund defal yëfi kuy dund jox ko yitte ji nga ko war a jox ak gëdda ba mel ni xanaa da fi dul jóge waaye nag bu dara desul lu def ngir àllaaxira nag melal ni kuy dee suba ndax lépp lu mu laaj ci sellal ak matuwaay yu baax di nga ko def ah dañu wax nag nii àdduna àdduna moo moo moo gàtt te li muy gàtt gàtt nit a ko gën a gàtt te nit li muy gàtt gàtt la mu mën a gën a gàtt ndax àdduna yàgg na fi loolu nit door a ñëw kon àdduna moo gën a gudd nit nit moo mu ñëw fekk fi àdduna ba pare dem bàyyi àdduna xanaa kon nit a gën a gàtt te nit li muy gàtt gàtt la mu man moo gën a gàtt ndax ñëw na lu yàgg ci àdduna mënul dara ba yàgg mu man ba yàgg mënatul toogaat fi diir dem xanaa kon li mu gàtt gàtt moom nit la mu mën a gën a gàtt moo tax nangoo naa ci sëriñ Cheikh Tidiane si almaktum sama sëriñ mu ni mu ni yàlla ma nga nekkaloon bi yaram xewagul te alamul arwaax fas yéene nekkaat ak moom ci biir bàmmeel bi yaram xewee diggante bi ngi fii am ak nit ñi bu mu la jaral si diggante ak moom ndax àdduna jaamu nit la nitay sangam te nit it yàllaay sangam di toppatoo sab jaam ba sab sang jéppi la boroom xel du ko def kon tabaarakallaahu loolu la oustaz doon résumé ah nit nag bu ganee àdduna war a génn àdduna war nañ koo waajal ah nit nag dina dee ci feebar dina dee te du ñu yëg feebaram waaye ku yebu rek def très attention parce que ku nekk ci nun am na saw yaram lu lay tëkku te xamoo fu muy mujj ak yow ku ne am na ci saw yaram lu lay menacé ko xeeb de ba ci bët buy bu ko xeeb ku ne am na lu lay tëkku te xamuloo fu mu jëm ak yow bu tawat tàbbee nga faju faju nag li sëñ Cheikh wax nee na am na ñoo xam ne gëm nañu faju docteur mais gëmuñu faju ñaan ñaan am ñoo xam ne gëm nañu ñaan waaye gëmuñu faju docteur mu ni ñoom ñëpp ci erreur lañu nekk dangay boole ñaar yëpp soo fajoo wér fa lillahi alhamdu waaye di nga faju bis doo wér de soo fajoo wér santal yàlla bu baax waaye ah. dinga nga faju bis doo wér bu yàlla dogalee nag dem ba feebar tàbbi ndax ku dee xattit kooku duñ la wax naan la nga toog fa moom di jàng lii ndax sóoraale ko woon ki feebar kay dem ba nga ñàkk yaakaar ci moom la ñuy wax ni nga toog ci wetam di ko assisté di ko wéttali del dalal xelam nag boo boo amee loo sentir sax lu war a mën a tuur sa sax soo mënee du muuyu booy tuur sànqooñ baax na ndax tuur ranqooñ gi ngay tuur mu jort ni dafa am loo gis ci moom lu dalul xel mën naa yokk jàngoroom mën na koo teel a yóbbu toog ci wa tamit di waxtaanee ku feebaroon feebar bii ko dal te mu jul wér loolu du xel lool du dalal xelam yonent bi it nee na bu nit feebaree su ngeen demee seeti ko ne leen na ngeen ko ñaanal te mu ñaanal leen te bu leen fa yàgg na ngeen ko ñaanal soxla na ñaan na leen ñaanal ndax jeex na ci yàlla tàkk ku toll ci yenn moment yi set na leen ñaanal dina nangu bu leen fa yàgg mooy nit ku wér sax matul waxtu ma laa ko wéree di bu ko assister lu yàgg seet ko rek def farata te dem sa yoon loolu leen bi santaane su tolloo ci période boobu nag nga nekk ci wetam di ko di di wax baatu laa ilaha illallah mu di ko dégg bu tolloo ci coma ndax bu tolloo ci xelam di ñëw sax ngay wax baatu laa ilaaha illallaah laa nga yàq xelam waaye bu tolloo ci xam ni kii daanaka mi ngi coma deel wax baatu laa ilaaha illallaah ndax mu for ko wax ko yonent bi nee na ku mu mujj ci sa làmmiñ nga texe nga di ko wax sëriñ Cheikh nee na soxna Astu kan yaayam na dafa feebar ci mujj dundam nee na ma ma ma gis ni tuñ yi mi ngi raf mu mel ni dafa am daal lu muy wax nee na ma ñëw dëpp sama gémmiñ ci nopp bi dégg mu naan laa ilaha illallah muhammadun rasulullah ma ne xoolal kii rek ak ni mu gëme Cheikh Tidiane Chérif ak ni mu gëme Seydi Hadji ak ni mu gëme Cheikh Al ma di ko déglu mu naan laa ilaha illallah muhammadun rasulullah hmm? bu fa accès rek xam ni fii la su génnee àdduna nag walla mu toll ci moment yi muy waa di xar-xarle geste bu ne dina ko def waaye bu sànnee loxo delloosil bu sànnee tànk delloo sil mu normal boroom baa ngi junj kalla ida balagati taraqiya وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق nee na moment yi nga xam ne dem nañu banaan nañu wooyu docteur sàngam docteur Faye tee ñoo woo sëriñ diw imaam imaam imaam dem tee ñu koo wooyi kalla ida balaxati taraxiya bu demee ba ruugi toll ci déndi baat yi wa qila man raaq ñu naan ku mën a mocc nañ seeti seen diw nañ seeti docteur sàngam wa na anul firaax moom mii ngay wax lii nag wóor na ko ne day teqalikoo ak dund wal tafati saaqu bi saaqi tànk boo yëkkati mu daanu ci morom ilaa rabbika yawma idinil masaaq tey benn destination rek moo am mooy wujji borom bi su loolu amee nag ñu suturaal ko muur ko ba mu jekk war koo yóbbu ci morgue bi mais ñan ñoo war a sang ay mbokkam oustaz wax na ko ci kaw bu ñu ko manee bu ñu ko manul ñu wut donte bon pour résumer bu ko mbokk ya mënul ñu wut jàmbur bu ko man mbokk yi bu ñu ko manee nañu maandu nañu discret bu ñu bu loolu të nañu wut jàmbur bu ko mën te discret yonent bi nee na man xasala musliman fakatama alayhi gafara allahu lahu arbaina nee na ku sangub jullit suturaal ko dey ku sangub jullit suturaal ko dey yàlla dina la jéggal ñeent fukki yoon ndax booy sang nit léeg-léeg nga xam fi mu jëm waaw nga xam fa mu jëm léeg nga xam ko ci mandarga yi ngay gis ci moom ak xaal bi ngay gis ci moom xam nga xam naa nangam nga ni xamoo ko wala mën naa nangam nga ni mënoo ko nit ñi dañ ciy juum parce que boo ko delloo ci kii xamle da ngay xam ni war naa mën a nekk ku xamul dara ku xam lu ne tey xam xamle xamal ko man man itam nit kii mën naa néew doole ni yow waaye kiy manal nit bu manalee rek mu man te nit yàlla mi baaxe nit mën na laa wan lu mu la bëgg wan la ko wan la ni kii kuy dem la kuy dem aljanna la wala kuy dem safaan la waaye nag na nga nekk ku discret na nga nekk ku am sutura su loolu amee bu ñooñu amee ñi ko war a taxaw morgue bi ñetti nit ñoo ci war a dugg ndax nit buy dund boo ko nee wëlbatikul mu wëlbatiku boo ko nee doxal mu dox mais ku xës dee yaram wépp wàcc day day defe pour benn nit téye ko moo tax ñetti nit ñi mën nañ koo kii di téye kii di bomb kii di sotti yooyu yëpp muy ñetti nit délégation boobu muuru nag jiitle bilaal ubbil leen ñu dugg ñu muuril leen ñuy xool te ko xool yenu say loxo kon jooyee leen indi yow ñëwuloo pour yóbbu ko àjjana ñëwuloo pour ñaanal ko ñaan gum la woon dina nangu waaye daal yow li nga espérer daal mooy ñëw ñu mural la xar kanam nga daal di xool yenn say loxo jooy wuti kër ga loolu bokkul ci diine bu xësee génn àdduna nañ ko suturaal fa ñu koy dugal ñu koy toppatoo rek ñoo ko war a assister bu ñuy dugg it ci morgue bi nañu duggaale ndox mu doy ñetti njaq wala ñetti siwo siwo bi ndox dong ci ciy ne maa ul mutlaq boo ko bëggee sang janaba ci nga koy sang ak ndox moo xam ne day am am déem ndoxum déem ak boo xam ne day am kaafuur parfum euh, xeetu gëtt la goo xam ne gëtt gu gu neex la muy ñetti ndox yonent bi ñetti ndox yi lañ ko sange woon man ngaa dem nag ba mu ëpp ñetti ndox ba ci juróom-ñaar ni ko oustaz waxe boo gisee ñuy bëgg booy sang néew na nekk ndox mu sedd fi ngay wute ndox mu tàng mooy mu am liquide bu ne ci yaram bi te ndox mu sedd bi mënu ko dindi nga nuggal ndox mi mara day taali ko def choc huile oto bi yëpp tuuru ci kawam nga nuggal ndox pour boo ko tegee ci yaram bi huile bi mën a dégagé wu mais bu dul loolu ndox mu sedd lañ ci taam bu ñuy dugg gannaaw ndox mi ñu duggaale saabu ordinaire saabu ordinaire dafa bariwul ay produits chimiques moo tax ñu di ko taamu waaye luy xëb lañ ci jublu duggaale njàmpe ñax pour pourquoi njàmpe ñax njàmpe mbaal mën na sang néew mais nit ñi lu xës laal néew pare nañ ci nga dem jënd ko 2000 francs nag ci benn moment sànni ko loolu yàq la pourtant mën nga ko raxas ba mu sedd ko sangoo waaye doo ko def de xel xalaatu ko pourtant day taxut a dee de waaye nga jënd rek njàmpe ñax comme fukki dërëm lay jar ba pare sànni ko ca poubelle ba ak coton coton bu doy ak parfum bu amul alcool am na ñuy bu sax ay yaakaar la xëy na lañ set looy daggee ak yu demee dañuy bañ ñiy sang dugg ci biir ba pare ubbiwaat di génn ci biti am lu ñuy soxla li ñuy soxla yépp na duggaale wala ñu leen di fëgg bi ci des ñu sol ay gants gants yi nag double gants moo gënoon mooy gants yi ñuy jaay ci pharmacie bi nga xam ne dafa fragile baax na pour bomb yaram wi mais boo agsee ci bomb euh, li muy li mu daan nëbb nit gants yooyu baaxut moo tax doon na gën nga am loolu lëmas ci sa loxo boo amul gant wu leen yoo mën a teg ci kaw nga am loolu lëmas ci sa loxo waaw dinaa ci ñëw ci détails yi bu yooyu yëpp yembee amaana sax léeg-léegi cuuraay ànd ànd bu am xal ak cuuraay dina baax ci lenn dinaa ci ñëw lay tax mu baax li ñu jëkk a def mooy bu taabal ji nekkee nii bu dee néew bu góor dañuy lal benn morso nii jël néew bi teg ko ci kaw li tolloog ndigg li ba ci wóom yi morso lañuy ron foofu jël beneen morso teg ci kaw mu tolloog jumbux bi ñëw ba ci wóom yi bu dee góor bu dee jigéen nag morso bi ci suuf ak bu góor ñooy tolloo waaye nag da koy muur moom ba mu daj moom jigéen ji da koy muur ba mu daj bu dee jigéen bu dee jigéen da koy muur ba mu daj bu dee góor li commencé ci bumbux bi jëm ci wóom yi baax na soo defee loolu ba pare dañu mel ni ku la koy yéen ñaar da ngeen mel ni koy xaw a yëkkati mu toog bu dee koo xam ne dafa faatu te sàgganewuñu ko yaram bi day nangu ba léegi day disponible waaye bu toogee yenn moment yi te amul climatisation amul xorom dafay crampe dootoo mën a banque benn cër articulation yi day day day day opposé wu su fekkee nangu na ngeen lëngu ko mel ni koy yëkkati mu xaw a diju ngeen jël seen loxo di ko teg ci biir bi di ko xaw a percé di ko percé di ko xaw a nal soo defee loolu ba noppi delloo ko mu tëdd su dee tànk yi articulation yi bañagul mën ngaa yëkkati woom yi mu mel ni tànk bi la teg wóom yi jóg pour nga mën a am accès ci fii sobe bi génnee pour nga mën a am accès foofu pour mën ko nettoyer su fekkee nag dafa crampe ba articulation yi nanguwul su boobaa nag lañ la koy xëccal nga ron sa loxo ci suuf teg booru ginnaaw nga continuer fi sobe bi génnee pour mën ko nettoyer waaye loolu yëpp yaa ngi ko muur dangay dugal sa loxo ci biir dañu bëgg nag nga takk ci sa loxo loo xam ni boo dugalee di bomb aka làmb la nga daj doo xam lu mu ndax sutura la nga daj doo xam lu mu ndax moo tax man la gants yi jóge pharmacie dafa fragile boo ci yemee boo dugalee sa loxo foofu la ngay daj di nga ko mën a xam te loolu baaxu ci su ko defee boo defee noonu percé ko ba pare nag doo a jël raakool bi ron ko ci suuf wala bu dee yoroo raakool pot nga yor dañ lay xaw a muréel rek nga dugal sa loxo ron sotti sotti sotti sotti ba mu tooy nga jël nag saabu bi xëbal dugal sa loxo di bomb di bomb di bomb di bomb di bomb boo agsee ci bopp bi nga insister bu dee boroom karaw raxas ba mu xëpp xam nga léeg-léegi bu dee góor nga taaye sikkim bi defar ko ba mu jekk taaye mustaas yi yi nga xëcc ko wat ko yooyu yëpp dañ koy def mais boroom xam yu bari nee nañu ni nga ko fekkee woon buy dekki moom noonu lay dekkiwaale moo tax ñu ni même jigéen ji nga toll foofu di raxas bopp bi fekk mu def mèche walla greffage jarul dagg boo ko daggee da koy dekkiwaale yubaasul maru ala ma mata alayhi yubaasul maru ala ma mata alayhi da koy dekkiwaale dëgg la nag ni ñuy taayee sikkim bi di taayee moustache bon mën nañoo taaye dindi rek waaye lan li wóorul mooy deeyaale lu yàlla bëggut wóorul la yóbbaale nit ñemewu ko lu yàlla tere nga di ko dugaale bàmmeel nit ñemewu ko ña lay ña lay waajal ñemewuñ ko su ko defee boo defee loolu bomb ba mu set dëlar raakol bi ron ci suuf raxas ba saabu bi dañ ba jeex tàkk nga jël beneen morso ndax bi nga tegoon ci kawam ni ngay sottee ndox mi nii ñu lay téyel ci xubbi bi loolu yépp xubbi la xubbi soo paree dangay jël raakool bi sotti sotti sotti lépp dañ li tax nag ma tudd furno ak ak cuuraay yal nañu yàlla musal ci tux gis nga boo ko jaaxaanale noonu ba percé ko ba am lu wadde ci moom jaar ci suuf te loolu boo koy génne doo ko xool danga koy lëmës noonu teg ko ci poubelle bi ndax sutura soo ci paree danga koy tourner mu defee noo gis nga bu defee noo boo fëggee digg ginnaaw gi ruy bi ñu ko mujj na ruyee la café yi mujjoon a naan yépp nag day wal mel ni mel ni robinet su fekkee nag danaan tux lu mel ni godron mooy wal ànd ak odeur bu bizarre boo xam ni yéen ñi doon sang bu ngeen tegul cuuraay suuru bu ngeen paree bu ngeen génnee ci jullikaay bi ku leen jege dar ba kanam tuux la koy def bari na ci lépp moo da koy def fokk mu wal génn day wal génn su ko defee nag xubbi boobu bu ñu ko defee nag ba pare jël beneen morceau bu tooyul teg ci kawam daal di rocc ndànk bi jëkkoon a tegu ci kawam ndax tooy na teg ko fële ca poubelle ba màpp yaram wi ak bi yet ba mu wow koŋ màpp taabal ji ba mu wow koŋ war a commencé nag sang ko ni ñuy sangoo janaba sangu janaba bu dee kuy dund da ngay raxas par benn benn mais bu dee ku dee da ngay def par ñett ñett nga tàmbalee raxas loxo ndejoor bi ba ci tikku jara bi ñetti yoon dañ lay sotti boo ci jógee raxas loxo càmmoñ bi ñetti yoon gallaxndiku bi nag doo tànq ndox di sotti ci biir gémmiñ ji ndax nit bu dee loo sotti ci biiram it day senn benn mu jaar fi nga ko dugalee wala mu jaar feneen dangay jël coton di ko tooyal di ko socc ci bëñ yi comme brosse à benn sànni ci poubelle bi ñaar sànni ci poubelle bi ñett sànni ci poubelle bi muy gàllaxndiku saraxndiku bi dangay raw coton bi di ko tooyal di ko rulle ci biir paxi bakkan yi ñetti yoon dal koy sëlëm ñetti yoon raxas loxo ndejoor ba ci concali ñetti yoon raxas loxo càmmoñ bi ba ci concali ñetti yoon masa bopp bi dem dellu si nopp noppi benn yoon raxas tànku ndejoor bi ba ci kosten bi ñetti yoon def ko tànku càmmoñ bi léeg-léegi sax ñu wëlbatil la ko mu samp wetu càmmoñ gi ci kaw taabal ji wetu ndejoor gi féete kaw mais yenn saa yi bu dee ku diis doo ko mën waaye ñi lay jàppale dañuy tëyee xëcc loxo bi mu mel luy luy luy defeenu si kee xëcc tànk bi nga am espace pour mën a maîtriser wetu ndejooram googu nga tàmbalee ci lexu ndejoor bi raxas romb mbagg mi romb ndigg li ñëw ci tànk bi ñu tourné beneen côté bi nga jël côté gauche bi tàmbalee ci lexu càmmoñ bi romb mbagg mi romb ndigg li ñëw loolu nekk sangu janaba bi léegi nag nga door a jël ndoxum déem ndoxum déem garab jàkka yu bari am na déem ndakaaru nag si déem la ñuy wax mais boo demee Kajoor déem la ñuy wax directement xob yi ngay jël blessé ko comme ni ñuy def farci jigéen ñi bu ñuy togg per persi walla persi ni ngeen koy blessé noonu noonu nga koy def boole kook ndox pour sange ko ko mais léegi am na poudre am na ni mu amee sungufu nabedaay bii ñuy amee sikir di ko jëfandikoo waaw si bi am na poudre man gisuma ko nag fii mais gis naa ko ci extérieur am na fa ndax dañ ci yitt da leen na ñor su ko defee bu dee poudre bi nga am. wala da nga ko blessé noonu xob yu bees yi boole ko ci ndox mi siddéem bi boo ko sangee néew bu ko sax yi lekk duñu ñu dañu koy cof ndànk rek dañuy sérieux dañu koy cof ndànk rek bu amul siddéem nag bu ko sax yi lekk dañ koy saax-saaxee siddéem nag dafay garab gu am tur ndax alxuraan daf ko tudd sidratul muntaha wax nañ ni ma nga ca juróomeelu asamaan lu yonent bi def mi'raaj di yéeg jaar na fa wax nañ sax xob yi prophètes yi yàlla yónni woon yëpp cent vingt quatre mille prophètes yëpp ku ci nekk sa portale mi ngi ci benn xob ñu affiché ko muy lank yonent bi yàlla teral na ko teranga bu nekk dara échappé wu ko la amoon avant muy ñëw sax nañ ko ko bi muy yéeg di di dem xam nga nag yonent bu toll ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu naan ko yónni woon nañu vingt quatre mille prophètes ci yow ci ci ci xeet wi muy xalaat naan ñooñu ñu mu ak nu ñu mel yàlla terale ko wan ko ñëpp ba mu demee sidratul muntaha sidratul muntaha xob yi xob bu ci ne affiché nañ ci benn photo prophète mu seetaan ko door a dem yéeg waaye loolu yëpp taxuma jóg maa ngi sidratul muntaha rek sidra bi lay wax muy déem bi soo jógee ci ndoxu déem bi nga jël ndoxu kaafur bi ndox bi nga xam ne dafa am euh, gooweeg yu demee noonu waaw waaw ay goobe yooyu yëpp dañuy dem dañuy xeex eh, kii rek xet xet yi dañuy xeex ba tey suñu defee loolu ba noppi door ko jëlaat serviette gis nga ni koy toppatoo te c'est normal koo xam ni bi muy bi muy dund sel na set na fonk na laab dara du ko laal mu génn àdduna te man li ma gën a déranger ñàkk a manuk sang gi nga xam ni moo am ndax ragal dee ci koñ bu ne bu nit faatoo ñuy wër man sax wër gi déranger wu ma li ma gën a déranger mooy au lieu ñu ni ndax man ngaa sang néew dañu naan ndax ñeme nga ko dee nga ne waaw waaw am na ci ñu ñeme yàlla comme yaakaar nañ ni dara mën na cee ruus ñu ni mën naa ko tëju ci morgue bi roose ko ba mu tooy daal di màpp ni kaay jël def nañ ko benn néew bu gaañu ci benn hôpital du ma tudd hôpital bi ndax média laa jàkkaarloo benn waay ni mën na koo sang laaj fukki junni nga jox ko fukki junni yamul laaj ci ay matériel ci wàllu perkaal wàllu cuuraay ak ba ñu ko dajalee presque lépp lépp mat na quatre-vingt mu tëju sang-sang daal di génne ne yóbbu leen comme néew bi dafa daw diggante bu yàgg jëm ci beneen dëkk te néew bu ñu ko sangee pare gaa duñu ko sangaat mais dinañu xool coin yi nga xam ne sobe man na faa jaar dinañ ko xool su fekkee dañu gis ni da nga ko soupçonné da nga koy fexee nettoyer rek raxas ko ba mu set mais doo reprendre sang bi ba mu demee ca dëkk booba ñu tekki ko di xool situation néew bi gis nga bi ñu ko làqatee koppate mi mu soloon ak forog bi ak caaya ja moom la waa jël ma saale waaw léegi nag yow di nga bàyyi sa baay wala sa yaay wala sa doom ne ca biti benn waay ni mën naa dugg ci biir lëmës ni la kaay jël suul nañu fii ci caaro ak Pikine ñoo xam ne daanaka noonu la parce que soriwul diggante morgue bi la ak fii matul sax deux kilomètres duñu fi làqar ci di ko xool te boo ko mënul léegi am na ñuy exploité loolu di ci wut xaalis def ko industrie te lu ñu la ca laaj nga fay ko parce que boole nga tiit te mënoo ko teg ci lu ñu la nga joxe ko pour quoi doo jàng nooy def sa yaay bu fi jógee doo jàng nooy def sa doom doo jàng nooy def sa baay su ko defee ñu daal di koy nettoyer ba mu set wicc nag càngaay li bu dee góor ñetti morso lay doon yonent bi ñetti morso lañ ko sàngi woon bu dee jigéen juróom li ko des juróom ci jigéen musóor géeg beeco bi boo ci dollee yeneen ñett yi rek day daal di nekk juróom après naa leen wan nuñ koy defee bu ñu demee ci ci pratique bi am na ñoo xam ne ci li nu gën a miin nii mooy bu dee góor dañuy dagg mbubb daggal ko tubéy dagg jàllaa bi daldi cay teg morso bu mag ba ñu koy lëmase bu dee jigéen ñu dagg musóor dagg beeco dagg sër dagg mbubb euh, xar sànni lañ koy def kii noonu rek solal ko noonu wutal ko abbaaya doore wut morso bu gudd ba ñu koy lëmasi léegi yooyu yëpp dëgg la mais li gën a simple bu dee góor nga dagg ñetti morso ñaari day xaw a tolloog ngóoru néew bi ñaar yi bi ko ñetteel ca suuf lay féete day bàyyi ca tànk ya 40 centimètres bàyyi ca bopp ba 50 centimètres mu jaaxaan ci ñetti morceau yooyu bu dee jigéen ginnaaw boo ko beecoole musóor ko itam nga tëral ko ci ñetti morceau yu noonu ñaar yooyu ma wax moo koy def juróom bu ci jaaxaanee ci kaw coin yi nga xam ni bu daan julli foofu laal suuf fu ca nekk di fa def parfum sans alcool am na ñuy jël sax coton tooyal ko teg ci jëbi teg ci bakkan bi kepp ci baaraami loxo yi teg ci bëti wóom yi kepp ci baaraami tànk yi mooy coin yi nga xam ne bu daan julli yooyu mooy reposer ci suuf dagg benn coupon wu coton muur ko ci xar kanam bi waaye bul fàtte ni da ngay tëjoon nga gémmiñ gi ba du ŋaang parce que nit bu dee boo ko ignoree rek boo ko sàgganee rek moo gémmiñam ubbeeku nga yeew ko loola ca ba nga koy waajal la takk ko noonu su ko defee nga jël coupon wu coton muur ko ci xarkanam bi loolu moom ngay mujj a def sax boo booy sàng ndax mooy mujj waaye nga jël beneen coupon wu coton tooyal ko parfum couché ko ko comme ni ñuy couché xale ndax foofu ci angle boobu doo jël coton di saañ boo ko defee dangay am bàkkaar ba tey ci sutura rek ak war ma nga koy kuus soo defee yooyu ba noppi nag mi ngi tëdd ci ñetti morceau yi morceau bi sës ci moom côté droite bi ngay jëkk a jël teg indi côté gos bi teg xëcc ba mu seere ñaareelu morceau bi nga jël côté droite bi moom it teg jël côté gos bi teg xëcc ba mu seere bi ko ñetteel nag bu gudd bi bàyyi quarante centimètres ci tànk yi bàyyi cinquante centimètres ci bopp bi boobu ngeen nga koy lëmasi soo ko lëmasee fas ca côté tànk ya bu dee góor ci booru wóom yi nga takk fi benn morceau roccantal ko ca pooju cam ca ca wóomu càmmoñ bi nga koy roccantal roccantal mooy li nga xam ne boo ko fasee boo xëccee mu topp la ñëw ci booru digg li def beneen buum ñëw ci booru dënn bi def beneen buum muy ñetti buum mais bu dee jigéen da nga koy def juróomi buum jigéen dafa sacré te it xalaat nañu nga tëral ko di ko jullee ngelaw ñëw niñ ko takkee dëgërul ngelaw li muri ñi doon jullee gis dara su ko defee néew kenn du ko laxas mel ni koy laxas kenn kilibaa pourtant ñun ñëpp loolu la ñuy def dagg buum gu gudd lëmës lëmës lëmës lëmës déedéet danga koy roccental su duggee ci biir roccental yi day féete kaw ndax ci pooju càmmoñ ba la nekk te te wetu ndajoor gi la tëddee soo xëccee xëcc xëcc mu topp la nga bootal ko ko ci ginnaaw gis nga di ko yeew comme ni ñu yeewee kénkiliba ni ñu koy lëmësee xam nga lu muy posé dafay posé wax ju ñaaw wax ju logique ndax néew bi bi nga koy sang mi ngi lay dégg bi nga koy sàng mi ngi lay dégg bi nga koy jullee mi ngi lay dégg nga dem ba di ko dugal ci pax mi ngi yëg ni yaa ngi koy dugal ci pax nga naan ko yor paaka est-ce que correspondre na rafetul di denc nit di di yaakaar di ko jox espoir ba yàgg ñu dégg ñu naan ko yor paaka léegi li ko waral mooy danga ko koo yeew ni ñuy yeewee kénkili baa mënoo koo dagg ndax bu mu bi dafa dëgër nga gestu gos gauche droite ñu ko yor paak su ko defee bu ñu ko defee yooyu yëpp ba sàng ko bopp bi la ñuy mujjee suñu paree nag door a ah tàggu ne ko nag ah tàggootoo ak àdduna nag lëmas nañu tànk yi loxo yi def lépp waaye ya bopp baa ngi nii xar kanam bi léegi nag ah rideau bi day yëg ñu xëccaat ñetti morceau yëpp lëmas daal di yeew na waaw war koo génne nag fi ñu koy jullee bu ñu ko indee fi ñu koy jullee néew ay mbokkam ñoo war a méngoo ay mbiram bu ñu ko manee bu ñu ko mënul ñu seet ku ko man te na maandu bu ñu ko tëralee fu ñu koy jullee ni imam bi troisième position lay taxaw su fekkee néew bi def noonu su ma fi jógee na ma diw jullee nañu saytu loolu motulil ko yéeneem bu loolu jàppandiwul ay bokkam ñooy concerté wu tànn kenn ku leen doy mu julleel leen ko waxuñu kaay jullee ko de kaay ramu ko waxuñu kaay ramu ko kaay ñaanal ko kaay jullee ko lañ wax mais lii xew tey ci Sénégal gii surtout Alaaji Malick laa rekk tax ñun la taalib bi gaañu na nga déparé foofu ak sa 4 x ñu lay si karal nga ñëw di jullee néew boo xam ni amoo ko ci ndigalu ay bokkam du diine dara jala Tiwaawan nag laa mën a joxe misaal ndax fa laa bokk néew ay bokkam ñoo war a méngoo ay mbiram bu boobaa bu ñu ko tëralee imaam bi day taxaw bu dee góor ci côté bu dee am na lu ma tëb rek après nga fàttali ma parce que comme binduma euh, dama koy wax nii ndax am na lu ma ci xam lu bari imaam bi ci côté ndigg li lay taxaw bu dee néew bu góor bu dee bu jigéen l'islam dafa fiir mu ne imaam soril soril ndigg li demal ca booru bopp ba ne parce que dañuy bañ nga taxaw ci booru ndigg li ndiggam moom néew bi tolloog sa ndigg seytaane manipile la ngay xalaat lu sew taxawal fële imaam dem ca booru dënn ba ak bopp ba taxaw fa bala ñuy jullee dinañu laaj bor yi bor yi nag ni ko nit ñuy waxe fii du noonu waaw kii tëdd ku mu yoreel ak ku ko yoreel ñëwal ci man déedéet loolu doyut danga naan ku ko yoreel fay ko jot na ku mu yoreel nag ñëwal ci man maa ko gàddu ngay wax maa ko gàddu waaye ku mu yoreel ak ku ko yoreel ñëwal ci man bu ñëwee nga lànk na léeg-léegi nit ki ci ngistal rek ñu julee ci jàkka ji rek nga daal di fomp say rangoñ sa kilin ak sa nag ñu ne daal di waa bon ku mu yoreel ak ko yoreel ñëwal ci man waaw ñu dem ba dëj bi raaf ba ñu fàtte ni ñoo wax nga ne ah mais <laughs> kooku noonu lay man a waxee ah. maa ko gàddu moom da koy wàcc ci saa si yow nga ngi sa say sa yenn bi ci des mooy problème mu dàll yi da ngay dégg tëxët moo xam ni eh su ma leen dàll yi ku la ko wax logique dafa l'islam dina déglu xel. bu dee jamono nawet li wër jumaa ji yëpp taa xémb ak ndoxum sobe nga xam ne ndoxum foos ak yëpp wàbb na ñëw ca booru jàkk ja wër ko ñuy jullee néew bi espace bu ndaw la ñu am pour teg fa néew bi ñu ci des nga ni sumu leen dàll yi ndax dañuy taxaw ci biir ndoxum sobe mi di julli walla boog muy naaj wu tàng jër jàkka ji talibee ko traversé tali bi tàng na ba mel ni fer à repasser bu ñu branché ndax dangay taxaw ci kaw tali bi noonu doo teewlu ndax tàngaay wi wala da ngay summi say dàll ba pare wëlbati ko waa taxaw ca kaw dàll yi mu mel ni jaru ko woon man ngaa sol dàll yi waaye bu ñu ne allahu akbar góorgóorlul ba talon dàll bi bu mu tàqali ko suuf si bu talon dàll bi teqali ko suuf si sa julli wératul waaye xanaa xamu noonu jullik farata sax boo ko seetloo bu dul woon talon dàll bi nga xam ne boo su jotee mu daal di téen teqali ko suuf ndax li yàlla di mën di toléré ci sobe bu feeñul bokkul ak sobe bu feeñ su ko defee julli gi bu ñu laajee bor yi ba war koo jullee ñeenti kàbbar la kàbbar bu jëkk bi faatiha ngay tari nga allahu akbar kàbbaru ñaareel bi nga julli ci yonent bi ñaata séexa moo am ñu jullee ci yonent bi kenn xamul lu mu toll bu la neexee nga jël salaatul faatih bu la neexee nga jël salaatul faatih am na nag ñoo xam ni dañu koo jam salaatu ibrahimiya la ñuy jël mais salaatu ibrahimiya am na sew-sew ci prix mi ndax salaatu fatiha dafa am ñuy wax ni texte la boo xam ni moo jiitu salaatu yu bari te texte révélé la am ñu ko diingat ndax baatu Seydina bi ci nekk ñu ne yàlla bu doon julli ci yonent bi du ko ni seydinaa sama sang mais salaatu ibrahima bi ñu ni moom la ñëpp war a jàng moo wér secret salaatu beneen da cee feeñ ndax boo dee liir salaatu ibrahimiya allahumma salli yàlla yàlla nga julli ala seydina muhammadin ci seydina muhammad wa ala ali seydina muhammadin ak ñooñu Seydina Muhammad kama salayta comme nanga nga woon ah kon am na geneen julli hmm? kama salayta comme na nga comme na nga jullee woon ala ibrahim ci ibrahim wa ala ibrahim kon am na geneen julli ah hmm? am na geneen julli ci prime mi nga koy déggee ma tax nag mbir yi nag masala yi masala yi nag di di ci teey te ànd ca sago baax na te bañ a ñëkk ndax nit buy jàng tey gëstu bu mu tayeel su demee ba insister ci mbir ci biir mbooloo dem ba mbir mi nu wóor ko ni du noonu bu mu ñëkk bu mu insister na na na rectifié wu sëriñ Cheikh nee na sëñ sëñ Birane Sarr dafa naan jàngal ba nu wàccee di ñibbi mu séen ko muy daw dinu nu dab si ak tànki neen naan baat sàngam lu ma leen waxoon ñu ne ko nanga mu daa ah, bu leen ko wax fenn damaa ju daw dara yeneen xale yi ca des loolu ku rëy mënu ko ku rëy julli sax bu demee ci biir julli gi ba yëg ni ndeke amul jàpp rus naa sëlmal day continuer rek boo lëggee lu xew baax na ndax rëy te du noonu war ko jullee ñeenti kabar la ñeenti kabar la kabar bu njëkk bi ci ngay tari faatiha bàkk sunu borom kabaru ñaareel bi ci ngay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa moom laa leen waxoon ni bu la neexee salaatu bu la neex jël ndax boobu maa ngi doon wax ci affaire salaatul fatiha ak ibrahimiya bi ba faf jàll kabaru ñetteel bi nag ci ngay ñaanal néew bi ñaan bi ci gën a siiw mooy alhamdulillah wa salaatu wa salaam ala rasulillah allahuma ixfir lahu warhamhu bu dee néew bu góor benn góor bu dee ñaari góor nga ne allahuma ixfir lahuma warhamhuma bu dee benn jigéen nga ne allahuma ixfir laha warhamha bu dee ñaari jigéen nga ne allahuma ixfir lahuma warhamhuma bu dee góor ak jigéen it nga ne allahuma ixfir lahuma warhamhuma bu dee mbooloo mu góor nga ne allahuma ixfir lahum warhamhum bu dee mbooloo mu jigéen nga ne allahuma ixfir lahunna warhamhunna bu dee mbooloo mu góor ak mu jigéen nga ne allahuma ixfir lahum warhamhum da nga leen di góoral noonu la ñuy jullee bëri na ay ñaan nag mais bi ci gën a yomb te gën a siiw rek mooy allahuma ixfir alhamdulillah wa salaatu wa salaam ala rasulillah allahuma ixfir ñaanal néew bi njéggal ñaanal ko yërmandi ñeenteelu kàbbar bi ci ngay ñaanal mbooloo mi am na jur ñuy wax rabbana atina fi dunya xasana wa fil axira xasana ñaan daal ñaan goo xam ne mbooloo mi ngay ñaanal waaw moo loolu mooy mooy jullee gi suñu ko jullee ba noppi war koo yóbbu ci këram gu mujj pax mi ñaari nit rekk ci war a dugg ñaari nit su fekkee day néew bu am keneen di ñetteel dañuy jël lu mel ni kaala lëmas ko ci ndigg la mu ne ca biti yoorle leen pour dugg ki yomb bu diisee nag ba yenn poids yi jéggi dayoo ñett mën naa dugg damay xuloog waa Pikine ak waa Caaroy ci seeni rob ndax dañuy jël néew ba teg ko ca soowu bàmmeel ba te néew bi dafa war a defeenu ci miiru pax mi féete penku waaw léegi nag boo ko tegee ci côté soow ba pare bëgg koo dugg ci biir pax mi yow war a xàttar bi koog moom yóbbu ko ca miir ba féete penku pax mi day màbb li gën a charge mooy teg ko ci kanam côté penku su ngeen duggee ci biir pax mi yéen ñaar da ngeen koy jàkk jekku da ngeen koy maîtriser ron seen loxo jël ko ndànk ndax dafa jaaxaan bu ngeen ko ronee seen loxo jël ko ba mu jóg da ngeen koy rouler mbagg mi dem mbagg mi dem waaye mbagg mi du dem directement tànk yi jëkk a dem booy dugal bu bu ngeen ko jëlee noonu da ngeen koy xëcc mu romb pax mi pax maa ngi nii mooy sama étui bii mooy pax mi mais néew bi boo ko jëlee danga nga koy indi nii rombale ko pax mi ba mu mel ni mu ngi bëgg a jeexal pax mi nga wàcce tànk yi yaram wi door agsi waaw noonu nag da ngay teg néew bi mu làng pax mi nga xëcc dugal loolu yomb na trop mais danga koy delloo bopp bi ngay indi bopp bi jaar ci fi tànk yi waroon na ne bopp ba fi romb bay bëgg a jeexal nga indi tànk yi reposé li ca des door a wàcc léegi bu ngeen koy dugal ñaar ñi bu ñu koy dugal dañuy wax bismillahi wa ala sunnati rasulillah wala bismillahi wa ala millati rasulillah daal di koy teg geganal ko suuf ba mu mel ni ku nekk néegam bu bloqué ci ginnaaw ba du jaaxaan bu njëkk dañ daan jël benn planche wala benn zinc teg ci kawam jël suuf si sotti ci kaw zinc bi nga xam ne suuf si du àgg ci moom mais ñu bari defatuñ ko dañuy jàllampe directement te pax mi it warul tond dafa war a xóot ndax pax mi bu xóotul mën na poser ñaari problème mooy xaj yi mën nañ koo sulli ndax xaj yi dañuy dem fu nekk di fóon bàmmee li fóon bu leen yàpp xeeñee rek ñu gas walla boog nga suul ko suul bi xóotul jàngoro bi ko dal bu mel ni corona wala yu mel ni jàngoro yi wàllee moo ko dal te yow suul bi xóotul tàngaayu jant bi am doole joo xam ne day dem ba mujj romb suuf si dem ba toucher corps bi gilli microbe yi ñu jaar ci armeel yi ko ci nooyi rek mën nga feebar moo tax nañu ko gas ba mu xóot xóotaay bi baax na ci ñu rëppeel ko ci biir daal di suul ah yonent bi nag waxoon na ni bu ngeen dencee néew na ngeen ko wétali c'est-à-dire comme lii xew bu ñu jullee nga naan waaye nañu bàyyi ba dem te kër ga waay bu ñuy rob nga naan waaye naaj wi dafa tàng waaye nañ dem te kër ga àggale waxtaan wi waay kii tëdd day moom bu sañoon toog fi ba ginnaaw geewe ñibbi te kër ga yow mi yàkkamte yaa deewul rek hmm? yow mi yàkkamte yaa deewul rek ñu ni ko waaw ban durée wéttali bi <coughs> mu ne lu mel ni rend giléem fees ko toj ko saam ko séddale ko loolu man war na mat 40 minutes durée bu toll noonu na nga jël sa temps pour toog fa suñu ko dencee bay ñibbi na am ko fa des wax ak moom dina la dégg talqin lañ koy wax gis nga néew bi bu ñu ko suulee ba ba ñu ko suul di ñibbi nopp bi féete kaw dina dégg tànk nit ñi ñuy dox di dem dina ko dégg su koy dégg ba déggatu ko dina dégg ñaar ñuy xotti suuf si di ñëw ci nopp bi féete suuf la koy déggee mooy mun munkar ak nakiir bis bi la yàlla doon wax tey la nekkoo hôpital nekkoo clinique nekkoo sa kër dina la dégg dina la dégg dina la tontu sax mais doo ko dégg dina la ah kon man damaa dee. nga ne ko waaw li ma lay doyee mooy ñaar ñoo ñuy xotti suuf si di ñëw. ay jaam lañu comme yow ñu laa def lenn lu leen yàlla santul dafa am lu ñu lay laaj rek pour mottali sa téere bu ñu la ko laajee tontu leen dinañ la ni man rabbuka kuy sa borom neel allahu rabbi yàlla mooy sa borom soo defoon yàlla borom nag nekk ci ndigalam day yomb booy tontu man nabiyuka kuy sa yonent nga ni na muhammadu nabi yi bu dee yonent bi sunnaam ñoroon na la day yomb pour nga tontu. maa diinuka luy sa diine nga ne al islaamu diini bu doon defoon nga lislaam diine di pratiquer day yomb pour nga tontu maa kitaabuka luy sa téere nga ne al quraanul karim kitaab yi al quraan mooy sama téere ndeysaan nga daal di geganu daal tëdd nag daal di muuñ bu dee da ngaa nar a texe ñu defal la alimentation bu lay bégal ci sa bàmmeel bu dee rek wala iyaadu billahi itam ah alimentation parce que àjjana ji ngeen di dégg ñu di ko wax àjjana ji ngeen di dégg àjjana pareegul ay Parcelles Assainies la ku juddu ñu daggal la parcelle àjjana daggal la parcelle safara entrepreneur yaa nga fa maçon yaa nga fa ca fu ne architecture yaa nga fa loo jëf ñu mandaté leen ko ñu tabax bu sa kër àggee nga dem àjjana pareegul de ay Parcelles Assainies la nit ñi faatu fa ñu leen denc fa suñ ruu yi ne foofa mooy barzax tubaab di ko wax monde intermédiaire Serigne Cheikh Tidiane si nee na ñu ngi ko aménagé diggante asamaanu ñetteel ak bu ñeenteel ruu yëpp ñu ngi leen aménagé ci ay HLM foofu nee na moo tax yonent yi nga xam ne dañu dépassé asamaanu ñeenteel du ñu ñëwaat mais yonent yi nga xam ni fii la ñu nekk diggante barzax ak ci suuf moom fokk ñu ñëwaat ay saa ci la bokk. si daa ji lim na leen ci benn bayit bi aadamin asamaan bii marra isa yusufin wa xanuuxin summa haaruna muusa wal abi rahimi xanuux mooy yontu yàlla idrissa waaye yontu yàlla aadam bu ñëwee tey bu mu leen bett pour justifier yenn yi mais bu ñëwaatee bu mu leen bett xanuux mooy yontu yàlla idris bu ñëwee bu mu leen bett ndax Serigne Cheikh nee na diggante asamaanu ñeenteel ak bu ñetteel HLM lañ am na HLM yu ñu installé foofa fa la ñu dugal ruu yi ñi faatu te bis penc jotagul ah ñoom dara lañ de wallaay su ko defee bu ñu dencee ba pare ba nga defal ko talxiin ñu war faa jóge ñëw ci kër gi paanu ndox bi ñu taaj fee ñaari paanu ndox yi xam ngeen lan la ñi doon sang ba seen loxo poussière civilisé wul ñuy nuyu nit ñi ñooñu lañ ko fa taajal pour ñu raxasu ci mais yow ngi duggul ci armeel yi loo ci loo ci raxasoo waxal li tax loo ngay raxasoo wax ko rek wax ko boo demee armeel yi Pikine yi kër yi wër armeel yi <coughs> kër yi wër armeel yi fenêtre yi benn du ubbeeku ma nga am ay lënd waaye du tee dee de kër yi wër armeel yi fenêtre yaa nga ne ràpp tëj du tijjeeku waaye du tee dee de hmm? ah. paan bi looloo tax ñu taaj ko fa kaamil bi ñuy wàcce am na ñu ne biddaa la man gis naa ci internet bi waa ju ci wax ba wax ca lu ne biddaa la dañoo bëgg lekk laax rek ak weccet waaye araam na yonent bi defu ko woon defaluñ ko ko woon mais xam nga logique lislaam dina ko gunge du nun ñëpp xam nañ ni jàng alxuraan am na yoon du am na yoon waaw sañoo jàng alxuraan ba kaamil bi àgg nga ne may naa ko diw ah te man gis naa téere bu Serigne Touba bind tudde ko xatmul quraan il mayiti xatmu bu ñuy jàngal kaamilu néew Serigne Touba bind na ci benn Alaaji Maalik bind na ci benn am naa ñaari téere yëpp man nag ñoom ñaari seen xam-xam moo may gën a doy ñiy wedd ci mbedd mi ah parce que li ñu bind bari li ñu bind bari te te te ñiy weddi bu ñu gisoon ci mbind moom benn faute grammaticale dañ koy dénoncer mais ki nga xam ni yow mënoo critiquer mbindam mënoo cee jam dara hmm? te Serigne Cheikh Tidiane si nee na méccam yi dafa yomb weddee ka yomb Serigne Cheikh nee ki dem jënd der wulli ko ba mu nooy nepp mu liggéey ci dàll dërni ko ndeysaan teg ko ci taabalam di ko jaay semaine nga ñëw daal di xool ni fii dafa nor yaa ko gën a yomb métier ndax yow métier yow benn seconde nga ko def moom nag liggéeyam def na ko ci semaine yow nga def sa métier ci benn seconde dafa nor ak yomb kon bu ko defee dëj yeeg ñaan yeeg yooyu yëpp waa xam naa maa ngi dugg ci yoo xam ne sax yee de détails parce que léegi-léegi ndax nàkk yi ñu ne biddaa la dégg naa Serigne Touba radiallahu taala anhu nee na xur yi daf leen ko ay jànj yiw rée ngi ci ñu ne ko lii loolu mu ne ko biir mu ne biiru jullit bu xiif ba laab aw xur la soo ko joxee mu lekk def nga ko jànj jànj mooy mooy descente mooy mooy mooy ñu koy waxee ti montage ok waaw ki dégg ñu ni diw gaañu na <coughs> muy ñëw ci dëj bi jógee Kaolack oto bi paan damuy muy agsi quatre heures jot na mu fekk ñu añ ba dëpp dab yi bëti xonq cooy nga jox ko ñaari danki nàkk ak mbuusu ndox loolu bi daal la hmm? léegi nag wala fii lu ne dañ ci dañuy commenté di wax dañu ne dafa am ñu wax ñaari wax man benn bi laa gën a d'accord dañu ne nàkk gi bu ñu jéggalee ki dem ki ñu ko defal bu ñu ko jéggalee yow mi ci lekk ñu jéggal la am ñu ni déedéet ku yàlla jéggal bu ci lekkee ñu jéggal ki dem booboo gën a logique yow la ñuy séentu nga jàppale ki dem mais yow miy dund am doole amum xel bu lang ci ku dee jaamu jël yàlla boo bëgg dem àjjana hmm? ah kiy dund la yaakaar kay mu dimbale kii na ci lekk comme yàlla jégal na ko jégalaale ko waaye bu ñu ko jégalee moom mi dee yow ñu jégale te yow ngay magum jëm am am xel mën a jaamu yàlla lànk doo dem jàkk ja ah ah, ah? ah kon tabarakallahu euh, lii nekk xajul ci benn journée parce que détail yu bare bare bare am na ci ñi nga xam ne seen papa day gaañu ñu nekk Italie wala Amérique naan nañu ma xaar jël naa vol am naa avion am naa place déedéet nañ ko denc soo ñëwee dem ca bàmmeel ba jullee ko bu dee loolu nga bëgg man ngaa nekk sa Italie sax jullee ko fii Najaasi mujj na tuub yonent bi nekk na ca Médine woote salaatu te jumaam ñu jullee ko te ma nga ñu suul ca Éthiopie waaye xaar leen maag waa maa ngi ñëw ak am naa vol ñu téye néew bi ñetti fan sa baay yu sa ba sa rakki baay rus <coughs> seen di jaay yi rus ñëpp rus ndax joxoo leen cër te boo ñëwee tamit looy def dara xanaa jooy kon tabaarakallaahu xëy na du ñàkk fii rek ay question yu ndaw bu ma ko mënee tontu bu ma ko mënee bu ma ko xamee ma tontu ko su ma ko xamul man ne xaw ma ma jox El Hadj mu conclure ñu doogu ci pratique bi pratique bi day gaaw parce que gis nga maa ngi ñëw pour lii sama xaritu benn bakkan table yi nekk ci daara jaaj yëpp moo ko fa indi ñu ne ma gaañu na wallaay mi ngi ci da fii dalal jàmm bi deux heures lañ ko war a denc moo tax dee dafa xew dee te balaa xewee nu jeex waa la ko wax lii nii day yokku de wax naa ko keroog bi Mame Penda gaañoo ma ni leen li ma gis ci armée de Pikine yii bu dakkul leenu bokk ci sooy rob yi fekk fa mbooloo muy rob boo robee bay génn meneen mbooloo dugg di rob bu dakkul leenu bokk ci su ko defee itam li ma wax ci njëlbeen gi damaa koy baamuwaat ndax waroon naa fu ma defee benn 15 minutes waxaat baamuwaat ko ndax lii nii day lu rëy lu xajul ci benn deux heures de temps nit mën na koo déglu xam ni am na luñ ci waroon li waaye complémentaire rek lay doon te fekk tëb naa ko ñaar rek lay mën a doon ma fàtte ko wala xaw ma ko te nit ki moom mënul xam lépp waaw waaye daal sori naa ci daal li ma ci jot a wax nii moom euh, sori na ci boo ko ci dindee la cay des du bari. Hmm? Ah, xaw a waaye rawatina. Naby TV ñu bari ñu koy seetaan mooy chaîne Oustaz Fatah Sarr mi ngi ci YouTube bi dañ ko mën a seetaan bu ñu paree comme numéro téléphone yi tamit jël nañ ko lien bi dañ ko envoyé ñëpp bu ko defee mën a nekk nafa pour ñi tardé tamit mën a kii ndax lu baree bari jàll na lu am solo loo xam ni euh, ñëpp war nañ ko fekk kon Oustaz yàlla yàlla barkeel yàlla yàlla yokk benn yàlla yàgg taxawaay wax dëgg yàlla leer na lool lool xanaa bu fi jógee rawatina nga mën a faraatee tuuti tuuti. ko seetaanaat sa téléphone ndax am njàng la hmm. buñ fi jógee nañ ko def daas ku ñu ko envoyé nga tiimaat ko nag xoolaat ko ñaari ñetti yoon jàngaat ko bu baax a baax pratique ko kër yooyu da lay jaral sax sa portable di ko ci natt di ni nii laa ko war a defee nii laa ko war a ko war a defee ba gën ko mën ci des incha allahu taala bu mu fi ñu def ba mën a am nag am na fi soxna yu a teeru di sax yàlla leen yàlla fay ñu ngi ci biir ay jàmbaar ak moo xam ñu dëkk Lansar moo xam ñu dëkk ay maat fii xam ne naa leen ñoo xam góorgóorlu ñu gën leen a jege incha allah gën leen a jàppale. waaw dina ko. ci pratique bi mooy li ci ëpp solo te pratique bi dinañ ko résumé xëy na du yàgg waaye waxoon naa tey bu kenn du yàgg kenn yàkkamti du yàgg waaw moo a ñëw wax dëgg yàlla dimbali si bañ yaakaar naa ne jël benn marocain rek teg ko fii allah taala daal ko ci natt moo gën a wóor kon nag euh, deuxième moo ci des te mooy bi ëpp solo pratique boobu ñu ñëw pratiquer ko nag ñëpp gis ko incha allahu taala bu defee xam naa man lañu may ñi daan ndox soxna si bu fekkee café gi ñëw na nga may leen ñu siffle tuuti incha allahu taala lu mat juróomi minute rek pause bu ndaw bi cinq ba dix minutes bu defee ñu mën a ñëw ci pratique bi incha taala